jàmbaar dellu seeti na dugg ci àll bi mbokk yi tey jii nag ñi ngi ci Touba Kaneen numéro spécial weeru safaar lañu wax di weeru màggal tax nag ñu taamu koo xamante ne si màggal gi dara la ci sëriñ Axma mbàkki lay wuyoo waaye li tax ñu taamu ko ci seen émission jaar jaari jàmbaar mooy ak njàmbaaram du suñuy kàddu waa dëkk bi ñoo ko wax fi la nekk yore hectare am di bay nekk ci tool yi moom sëriñ bi taalibe topp ci ginnaawam di liggéey di def lu nekk nee nag li mu bëgg rek moom mooy mu bokk ci ndaw yi nga xam ne dañuy suqali senegal ëllëg te it ma nga ca ndaxte itam mu ngi jàppale waa dëkk bi lu ci mën a am daf nañu woon bu ñu yegsee ba ci pneu bi dina toog duñu xaar kon ñu dem xool ci mbaal bi noo ngi deeti <laughs> xam naa xam nga ne su ñëwee ba fii moom boo génnul faaw ñu xaw a réer ndax fii moom àll la moo tax ma ne xaaral ma ñëw si toog fii xaar leen. yéen seen dëkk bi amul tableau léeg-léeg ku fi ñëw mbaa du am problème. ah waaw nag war nañ cee jóg. waaw wax naa waa dëkk bi ñu changé lii. ndax pono bi daa suufee de. waaw bi daa suufee. dafa suuf nit ñi day ñëw rek di jaxase di réer. Ah. teel teel nañ de xanaa ah. gaa yaa ngi ki waaye nañ leen fekk ci tool yi. dégg naa fii moom dañuy teel a jóg. waaw dem nañ bu yàgg ci tool yi. Mhm. moo tax sax man kese ma nekk waaye kon fi la ñuy dajaloo. kon baax na bàyyil ñu àgg ci tool yi. xool ba xam naka la mbàkke dangay boroomi mboot te sag njaboot tawat di loo ñu feex ma ab antal bis laa mais nag dëkk ma yàgg la ci sama ndaw parce que bi ma nekkee kokki di jàng fii laa daan yalwaan see waaw bu ma demee sax ba njëkk fee fanaan génn guddi yéem na ma lool parce que man côté yi rek laa daan bañ a gis parce que xam nga kuy jàng gi daara bu boo xalaatee ne war ngaa delluwaat ci côté boobu dana metti ci yow. Mhm. moo tax dëkk bi bi ma fi ñëw <laughs> amoon naa njàqare loolu nag parce que daara ji xawoon na am nu mu demee ci man. Mhm. maamam sëñ Abdou Aziz day mbokkum sëñ Mat Saxir doon wëllëreem doon léppam ñu wëllërente mu joxoon ko ak njabootam waaye waajuram tamit sëñ Moustapha mi nga xam ne nii mooy waajuram moom it doon wëllëreem sëñ Maxtaar mii doon moroomam doon xaritam di wëllëreem di léppam. Mhm. ci loolu ci la fi jaarale ak njabootam. sëñ Abdou Aziz mi magam jaar na fi moom mi jaar na fi ay rakkam jaar nañ yàlla daf ñoo boole euh, ñu bokk way jur waaye nag ñu nekk ay xarit yu yàgg bokk jàngandoo bokkoon benn lal bu ñuy tëdd depuis ay at yu bari yoo xam ne benn lal bu ñuy tëdd ñoo ko bokkoon daara ju ma mës a jaar jànge fa itam maag moom ñoo àndoon noonu ci la ñu continuer ba ma jóge fi man dem Tunisie dellu si waat fekkaat ko fi ñu continuer waat di ànd ba tey jii lépp lu muy dugg euh, li ci ëpp rek ñaare euh, danañ ci waxtaan mayit lu may dugg li ci ëpp danaa ci waxtaan ak yar na ko yari magam yari rakkam ñëpp ngi ci àll bi di liggéey ni moom mii di def ku ngi ci dem ni moom mii mel nii la mel nit ku baax la woon nag nekkoon jàmbaar nekk dem koo xam ne yàlla def koo mayoon euh, xol bu yaatu xam ne bi ñu nekk ci daara ji ku farlu woon ci njàng mi la farlu woon ci xam-xam waaye itam ku yaatu woon la nag daan def maa ngi fàttaliku lu mu mës a am rek lu mu tuuti tuuti daf bokk ak ñun ñi nga xam ne ñoo doon ay rakam. jooy xiif tax na yenn tax na ñi daa eh, dama ko mës a bëgg parce que bi may nekk bi ma jógee kooki parce que kooki jàng naa fi laa mokkale ñu yóbbu ma Jurbel ma jàngaat foofu. Euh, sama papa yóbbuwaat ma euh, Koungheul benn dëkk bu ñu naan Kura ma jàngiwaat foofu dem naa sax ba mere ko ba yaakaar ni daf maa bañ parce que booba metti woon na lool sama moroom yi sax ñu bari nee naa raw nañ ma pour ma sol mbasin sax daf ma daan dama daan julli di ñaan yàlla naa ko yàlla ma may ma soli mbasin rek euh, bu ma am dara mu metti lool. waaye nag yàlla dogal bi ma ñibbisee bi ma jógee dëkk bu ñaan naan Kura ci la ma andilu ko ma commencé waat jàngaat daara ju ñu mujj yóbbu sax maa ngi fàttaliku suñu benn rakk loxo ma bi ñu fa yóbboo dafa dafa ñetti fan la fa def ñibbi si ne moom mënta añee cere reere cere ndékkee cere parce que ñalang lan doon añee ndékkee cere di reere cere moom mu ne loolu mënu koo supporter <laughs> daa daal di takki bagage am ñibbi si ñun nag man ak sama rakk bi sëñ Abdou Khadir mais ñun ñoo fa def juróom benn weer. metti woon na quand même waaye loolu moom euh, formation la boo xam ne. mënu la ñàkk ci ci doomi soxna d'une manière générale rawatina nag koo xam ne da bokk ci kër Serigne Touba ndax euh, li mu doon tey mën na maa wax ne formation boobu moo ko may. te euh, dëgg la euh, boo seetee bi ñu bi ñu noonu nga ko waxee ni la demee bi ñu nekkee ci kër Serigne bi dara manqué wul. ñu jëlee nu foofu sëriñ bi andi nu fii sama papa andi nu fii ci daaray kokki ji nga xam ne fi la nu bokk jànge ma moom. ginnaaw bi ñu fi jógee itam demaat nañ ci beneen dëkk bu ñu wax Bambouk ci Saloum foo xam ne presque daanaka dangay ngay def ay cent kilomètres mm. muy barab yoo xam ne yu xaw a tumuranke la tuuti waaye loolu lépp yitam mu formation la rek ndax moo tax tey ji mu mën a dellu siwaat ci àll bi mm-hmm. tàmbalee ci zéro di góor góorgóorlu ba réaliser réaliser fi réalisation yu am solo yi nga xam ne ñun ñëpp bokk nañ seere ko tey ji tuub nañ la daa defi koom te muy lu neexul woon borom jur be la wuute xarnu bi xeewal gi daf ndax waa juróom wi di maamam moom laa nekkaloon mu sañc Busra sañc Jumaada sañc Touba ñaan yi ca Tambacounda ma dellu ànd ak baayam ah, en cinq su su baayam jóge Tunisie jeexalum njàngam ñibbi si 62 ma nekk ak moom ba tey ji ak ah, ma ajuram sëriñ Moustapha nelaw na. xam nga doomu aadama nit ku nekk da am jafe-jafe amoon naa jafe-jafe eh, ci eh, Sénégal eh, ma jaa xalaat xalaat sama papa nelaw na. Ah, xaw ma lu ma war a def ma ne naa tukki bi ma tukkee ma toog foofu dem ci dëkk yoo xam ni kenn nekk fa amul sénégalais amul dara ma toog foofu di liggéey dama doon liggéey ci usine yi parce que buggatu ma woon ku may yàpp te buggatu ma woon a def lenn. dañoo ànd nekk France ànd Italie ànd si dëkk yu bëree bëree bëree bëree bëri muy yëngu ci lu bëri. Lamine Lamine te nga soññat gaa yi fàttali leen li sëñ bi wax ci digal waa réew mi ak biti réew. Cameroun boobu ma dëkkaloon usine bi ma njëkk yóbbu machine bi daa tourné rek ma daanu ci suuf. <laughs> <laughs> ñu woo tubaab bi tubaab bi woo ko nekk ndekete yow ku feebar nga ma indi indi ma nit <laughs> dama àttanu riiru machine bi ak miir bi <laughs> waaye nag xamoon naa ni toujours rek yàlla am na lu ma dencal luy ñëw ci kanam mm, matière kii daal xet gi nag moom moomu dugg rek daanaka ma daanu li te yàlla ak yeneen am it ànd nañ ca ni waaw ku wuutu sëñ bi bu diglee sëñ bi digle na kon te yàlla ak yonenam it ànd nañ ca néew. Italie moom tooloon naa fay jamono du ma añ du reer damay dem ci yenn place yi daanaka di lekk ay patatine yi nga xamante ne si ay un euro cinquante cinquante centime la doon jar. ak ndaw moom lu nekk mën na ci ñëw. Eh, xam yan saa yi mën ngaa nekk famille ñu am fa difficulté difficulté yooyu nag moo waraloon génn gën génn gi ma génnoon Sénégal ba lii lépp jural ba mu ma lii lépp parce que metti woon na ma génnoon fii bi ma demee nag ne gàddaay naa damay bàyyi Sénégal toog Europe ci laa dem nag toog fa di muñ di muñ ba lii lépp fekk ma fa. lu ne laa mën a muñ su ma nekkoon fii sax dañuy yaakaar ne man euh, comme noonu ma la wax nee noonu laa daan dund Europe di di dund dund yu neex noonu wallaahi alxasim danaa toog fii billaahi yàllaa ma tiim lu tolloog une semaine fonde bu amut suukar laay reere billaahi wallaahi taalaahi amut suur bu may tëdd fii. fonde bu amul suukar mën nañoo indi ki ma koy toogal mu wax la ko du ma ko suukar du ma ko naan dama koy naan noonu rek parce loolu yar bi la. ku Bàmba tànn ne moo may wootu jëf ñaaw. yilif na Touba te toog toogaayu sëñ bi taxaw ci luy defar dëkk bi kuy xew la it dana teew. Kabirou Ndoye bu ma sëñ Axma kat su ma sañoon. comme yow léegi da ngay euh, bu fekkee période liggéey dafa ñàkk da ngay toog ci kër gi rek di jullee ko werd jullee ko werd nañuy dem ci benn ñoom fu ñuy foowee moom day garder foofu nag bi ma fay dem ñoom dafa am ay jigéen ñu fa nekk di ma seetloo may am ku may seetal benn jigéen fekk am na ci koo xam benn footballeur bu mu nekkaloon kooku nag laay seetal di ko wax di ko seetal di ko wax ba mu jàgg moom mu am benn bis daal mu ne ma ki may nekkal nga may wax ay mbiram dama laa bëgg a booleeg moom. ñu woo benn kooku nag bi ñu demee muy INSA ki gëw ma bi ñu ko waxee loolu dafa ne loolu amul nañ ko teg fële ñu woo benn sénégalais bu tudd Idriss Idriss nag moom moo moom moo def foofu quarante ans booba ci jamono yooya moom yóbbu boole ak ñoom wax leen neen kii lii la. ñu INSA ki ñu ànd àndin bu rafet lu mat 5 ans ànd nañ ko fu ne yóbbu na ma fa par exemple bàyyam équipe Juventus boobu ñoom Zidane nga fa ñoom Trezeguet daan nañ añandoo sax ma yëg sama téléphone di woo El Hadj Diouf mi di ko jox Zidane wala ma jox ko Trezeguet jamono Juventus. ma gis ay ñu daan yëngu ci sport lu mel ni ay Paris Saint-Germain di leen doon defal ay ñaan Boubacar Sarr la ko man fekke ci lu bëri Laurent Courbis bañ ko ajee France mu toog ay at yu bëri entraîné wul sëñ Axma mii la fekk yónni benn ndaw bu nekkoon Ajaccio ku ñuy wax Mamadou Seck benn défenseur sénégalais. moom bu ñu boole kook euh, sëñ ax ma sëñ ax ma defal koy ñaan ba Laurent Courbis euh, am ci ay ndam yu bëree bëree bëree. suñu succès 2002 sëñ Axma lu bëri la ci ndax euh, ku ñu daan ñaanal la ku ñu daan fekk ci hôtel bi la di ñu defal lu bëri. doxloo garab yi bu wér noo man di tollu matoo santub sëriñ baara koo xam ni ki manulaa xëy sotti doji wurus dañoo njëkk ñëw taalibe yi sàkket kër gi ñu dëkk ci ñu commencé bay nag ñu commencé bay bay na ñaari at euh, ci la euh, ñetteelu at bi ci la sëñ Cheikh Mati nekk xalifa Serigne Touba comme sama maam la mu nañu demal nga sàmmi yokk ko ci mbay mi mu ne ma looy bay ma ne ko ñebbe mu ne ma dolli ci càmm gi. ndax yett yi nga xam ne ñoo fonk addu ñoo so ñooy fondation àdduna yett yooyu la maamam joxoon la maamam yoroon muy sàmm ak bay ak napp ci géej gi. boobu nag laa njëkk a yëkkati euh, boobu suur bi ma koy wax damay door a jóge Europe bi ma ñëwee ma xool li ma yoroon mooy li ma la waxoon muy 16 millions ma dem jënd lépp nag commencé ko commencé woon naa nag ci nag yi boobu fekk na fi ay ñaari nag ñetti nag. bu ma may commencé am ay diili ci laa nag yokkati 16 millions yi jënde ko lépp nag pour dolliwaat ko ci kii daal waaye du tee nag boobu ba léegi dañuy gën di yokk di gën di jënd rek dañuy jënd rek dem. Eh, waaye bi nga xam ne nag nun moom la ñu tànnal mooy mbay ndax man mii di wax ak yow maa ngi ñibbisi ci Sénégal l'an 2000 ak diplôme maîtrise ci université Zeytouna bu Tunisie waaye eh, mbay ci laa jublu eh, jëme ci sama yitte jëme ci sama sama jom jëme ci itam sama bëgg-bëgg yëpp ma orienté ko ci foofu mboolem wilaaya ak Serigne Touba laya fakaam la seex si seddoon ne day baa nga sëriñ baara fii moom ay nag ñoo fi nekk waaw fii moom mhm. sëriñ bu sant Mbàkke eh, jóge Bawol ñëw njàmbur di fa di fa yar ay nag waaw <laughs> yan raas nga yar fii waaw xam naa nag raas yi mhm. eh, docteur bi moo ci gën a xam sàll parce que moom mooy ñëw rek ne ma jëndal bi baax na ma jënd boobu ma mm-hmm. bi am na meew bi tant de litres lay def mm-hmm. ma jënd boobu am na yoo xam ne ñu ngi ci am ay vingt cinq litres yi ñu ci am vingt ñi mm-hmm. yi mooy vétérinaire bi toujours bala ñoo def dara ñëw taxaw ne ma ah, sëñ bi kii na ca dëkk ba bii dana ñeme tàngaay bi bii du ko ñeme ñoom moom bu ma waxee rek man ma fay ne ko déglu ko moom docteur Sall bi Holstein la dafa nekk nag boo xam ne dañ ko inséminé woon mu amoon doom bi ma amee doom ba léegi nag dafa nanguut a lekk léegi bi ñu ñëwee on s'est rendu compte que ni ànd bi moo génn loolu ànd bi moo desoon ci biir ci biir nag bi léegi dafa am garab gu ñu ko defal sànq avant ngeen di ñëw mooy si pour mu dimbale gis nga ni muy poussé nag bi ni muy poussé pour génne war na sëriñ baara keroog ba Cheikh Bamba ne sëñ Axmed ci mu jëndee nag yi kooku ki ko ko jaay man maa ko ingénieur loolu kooku ci deux millions la ko jëndee woon ci moom nag bii Italie laa nekkoon man mii di liggéey fekk na ma fa ba mu fa ba ma fa fekkee ànd nañ ci ay berger yoo xamante ni ay nag la ba mu nee ma wax lii dinaa ko defe ci réew ma booba man dama yaakaar ni xëy na ay caaxaan la woon. kii li ñuy wax Sénégal émergent moom ku gisoon dëgg de ku ko multiplier woon dina dina participer ci Sénégal émergent parce que dafa créer emplois yu bëri gis nga investissement bi ni mu mel nag yi fi ñu nekk. vraiment tàngoor bi dana ko wàññi et puis yi dana yokk seen production laitière fi ñu nekk condition yu baax la nekkee fa pare mi ngi générer ay emploi rirwaan diw bi buntu àjjani bee kawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh Baara jigéeni àjjana waajak kii moom lu fekkoon ñi nga xam ne yor nañu xaalis amuñu lu ñu def bu ñu gisee investissement bu mel nii ñoom mën nañ def mën nañ def lu mel nii parce que lii dana bokk ci créer ay emploi dana dimbalee nii ñi nga xam ne amuñu xëy dana yokk mais ñuy def lutter contre Euh, contre le chômage la sécurité alimentaire parce que mais moom presque fii àll bi yëpp meew la ñuy dundee. di def insémination di euh, génn ay centaines de litres yoo xamante nii di créer emploi jël ay nit def leen ci ci nag yi di ko fey ci xaalis boppam kon kooku mu ngi participer ci développement réew mi. day seet ñoo xam ne dinañ ko gën a mën a xital sax ci liggéeyam. ba nga xam ne moom xam na li muy def. moo tax maa ma ma bëgg même président de la war na seet ci ñu mel nii surtout que seen waajur nee na leen dem nañ tool yi mais président na ci profité ay ñu mel nii nga ñëw installé leen ñu seet lu ñu bëgg ñi def embouche am ferme agricole ñu am ferme agricole parce que sëriñ bi tàmm tëg Touba comme ni mu wax kii dafa am jom rek waaye ñi tàmm neexit wee pour nga génn leen fa il faut nga teg seen loxo lu ñu mën a lu ñu am toll na ci digg àddunaam su ko neexoon mu mel nu ko neex dem ci beneen yoon te defu dafa jóg ci santaane bi nga xam ne moom la sëñ bi santaane muy képp koo xam ne ndaw nga te toll am doole am kàttan mën a liggéey dugal ci at ci àll bi nga dem liggéey dafa dégg wax bi appel bi rek ndax ku toll ne xalif général des mourides bu neen na ñëpp demaat ci tool yi dem bàyyi ak sàmm mu dégg loolu dem jëfe ko kon moom dégg na dégg na dégg na ndigal investir ci àll bi jël lu bari loo xam ne mënoon na ko féetale feneen ñëw nekk ak moom ci àll bi tëdd feek moom képp ku mën a dem fanaan ci xetu nag yi ak ci àll bi dëddu nga àdduna te moom vraiment ngi ci li ko sëñ bi sant daal. faqir dafay nangu dagaan nangu lu lépp nun la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi sëriñ bi nongu dee ci ñaan am na yoo xam ni France lañ jógee am na ñaari nekk yoo xam ni France lañ jógee seen yaay dañ leen a tëbe France ñu ëmb bu ñu ñëwee ñu judd ñu jaay ma yoo xam ni tamit daanaka yu bari am nañ doom. ay rakam ak ak seen baay ñu am ay jigéen fi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci meew mi am na ñoo xam daal ñu ngi daan doole am na ñoo xam ne ñoo koy ratt am na ku koy jël di yóbbu ci jigéen ñi jigéen ñi ñooy segg jëlaat ko ñu dox lu lu mat kilomètre. Mm-hmm. jox ko orel bi orel bi yóbbu ko Touba. ñu jaayi ko foofu après bu ñëwaat moom mu indiwaat ko. léegi bu ñu jotee meew bi ba mu jógee ci gétt gi ba ñëw bu ñu degee meew mi dañuy ut ndox ak saabu ak eau de javel ñu raxasu ba set pomp suñu loxo ba mu set ñu doog a commencé segg mm-hmm. bu ñu xentee suñu meew ba mu yegg ñu doog koo takk. takk ko ay takk yu dëgër. ci ñu ngi commencé woon ci ay fukki litre. Mhm. ak i fukki juróom. waaye nag yaakaar naa fi mu toll moom mi ngi yokk mhm. xam naa tuuti mooy nag moo ñu jaaxal mooy yoon yi nga xam ne dañ koy dox ay kilomètres la jigéen ñi yóbbu di yóbbu ci oreel bi mhm. diggante boobu rek moo ciy metti ak yan saa yi ñàkk yi nga xam ne dëkk bi ñàkk na ko courant suñu demee bu fekkee oreel bi lay na rëcc bu ñëwaatee soow mi day yàqu fii ak taliba distance bi dafa xaw a sori yoon bi dafa diis de dëkk bi amul courant boo ko yóbboo su la oreel bi rawee soo ko delloosee meew bi day yàqu bu ñu sañoon tamit dinañ am courant nga xam ne bu ñu ko yóbboo bu horaire bi demee dinañ am am mooy suñ ko mën a def denc ko fa ba meer bi du du yàqu avant sañ bi di fi ñëw dañ daan xëy rek dajaloo sa penc ma toog bu taal añ dee ku nekk dem taalee mais depuis bi fi sañ bi ñëwee ba léegi jigéen bu nekk chaque jour boo xëyee am na loo mën a def ndimbalul sëñ bi moo ci jàpp bañ am lu mën a def kon sëñ bi mm-hmm. exemplaire la xam nga roy waay moom mooy sëñ Ahmad bi ma yasrahu la saana qad fajaa bi jaaye aflali man lillaahi xat la jaa hamdi li rabbin karimin la sharika lahu wasadriyal yawma nuran saatiha sëñ bi sant ko lool ndax bi mu ñëwee léegi gis naa walbati na gone yéene ci liggéey ak yaxantu ndax càmm gii ma gis mu tëral fii ah am na ci sox sunu xel gu ci woon te moom gis naa ni mu doxale loolu gone yaa ngi koy tàmbalee roy eh, yaakaar naa ne yoon bu baax la liggéey bi it ñu ngi liggéey bu baax ah, léegi laxasaay ñi ci doon dem sax dematuñu doomu aadama doomu aadama rek la noo mën mel doomu aadama nga loo am tey ji bu subaa mën ngaa yem kee ñàkk mën nga am tey bu subaa nga ñàkk mën ngaa am mbooloo tey bu subaa nga ñàkk ko yooyu yëpp dafay am moo tax sóoraale loo xam ni toujours ñëwagul rek moo tax. li nga war a joxe exemple ci réew mi delloo nit ñi ci yàlla delloo nit ñi ci liggéey delloo nit ñi ci sàmm te mi ngi koy def boo ñëwee fii ka fekk góor ñi ci tool bi ak jigéen ñi ci tool yi xam ni mi ngi bay wàll mi ngi mi ngi bay waaram ci ci tool bi. fi mu jógee ndax fi mu jógee mooy ci Serigne Touba ndax boo ñëwee fii gis li fi investir ci tool yi ba ci kër gii nii tey bi ñu ko fiy def metti woon na lool boobu am na kër tuubaa mu jàkkaarloog jumaa ji am na ko ci yeneen i barab kon bu ñëwee fii di gor ay bant di takk ay sàkket ngir sanc fi dafa delluwaat ci cosaan yi maamam defoon démb mooy sëñ Touba ku ne xam na ne bi mu ñëw Touba di ko soos fekkoon na mu nekk àll boo xam ne ni kenn bëggu foon a dëkk kenn moomu ko woon ay bukkeek ay gaynde ñoo fa dëkkoon ndax xam nga liggéey dafay principe bu am solo ci yoonu murit ndax sëriñ Touba Euh, daf ko fonk daanaka foo ko mës a fu mu mës a jiitalee ñaax bi ci jaamu yàlla lam cay teg mooy na góor góorgóorlu nangoo liggéey dafa waxoon itam ñetti mbir yoo xam ne benn bu ci nekk jaar na nit ki e, farlu nangoo sonn ci liggéey ñetti mbir yi mooy daf ne woon képp koo xam ne yéen a ngi bokk jamono te nga bëgg nawlonte ak moom mhm. na nga fexe ba mën a muñ lam yor te loolu liggéey rek moo la koy mën a may waxaat itam ne koo xamante ni bii bañ nga euh, nekk ci suufu kenn na nga farlu ci liggéey ndax koy tàllal sa loxo mu di ci teg rek bu yàggee mën na laa téye foo xam ne bëggoo faa toog mm-hmm. wax itam ne euh, koo xam ne bëgg ngaa nekk ab sangam dee ko euh, dimbali ci sa man-man te yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ci liggéey rek la daje loolu moo tax sëriñ bi bu masaan jiital jaamu yàlla liggéey la ciy teg. te sa njaboot tawat xam ne relation sëriñ ak taalibe nekkul rek ne taalibe bi dafay war di joxe addiye saa su nekk safaan bi moo fi nekk noonu li nu xam mooy suñu wayjur la ko dalee ci sëriñ Modou Moustapha jaar ci sëriñ Fallou jaar ci sëriñ Abdoul Ahad ba sëriñ Saliou mi ak Cheikh Mamadou ak ñëkk ak mboole mbaki mbaki yi li ñu xamoon ci ñoom ñoo daan dimbali taalibe yi ndax léeg-léeg nga gis taalibe boobu man dara fekk na ab sëriñam moo ko yar eh, taxawu ko dimbali ko ci ay financement am ba mu réaliser ay projet wëlbatikuwaat ñëwaat di eh, di di di joxe addiya mhm. loolu moo tax eh, lu am solo la pour nit ñi xam ne relation sëriñ si ak taalibe yi nekkul rek nangu addiya waaye li ci ëpp lu sëriñ si defoon ci ñoom la mhm. ñoom it wëlbatikuwaat pour delloo njukkal sëriñ si di ko delloowaat ci ñoom ku mun ka boon nga jox ko moo ndax yàlla naatal xer mi tafa ci réalisé moom bari na parce que ñun dañu bëgg rek ñëpp nekk di ci dund di ci am dara parce que mooy li ma la wax rek ak lii la soxna yi wax mais mi daanaka ñun daanaka amuñ ci dara dañ ko def ci kaw ndigal liñ ci lépp dañ leen koy delloo ñoom jigéen ñi pour ñu ciy suturu man loolu rek laa bëgg ñi nga ne ñu ngi ci àll bi daal amuñu liggéey def ñu dara dañ leen delloo loolu ñu ciy suturu ñun tamit ci am rek baax na mooy ci mbay mi ci gerte waaye na ko na ko na ko waa dëkk bi dund ak ñi dëkk fii ak ñi ko wër ku nekk daal la ci yàlla li la ci yàlla defal daal man loolu laa bëgg nga jëriñoo ko. kon sëñ Axma yegg nañ ci tool bi. waaw yegg nañ ci tool bi. tool bi ñaata hectare la. tool bi comme bi ñu ci sëñ Sidi Muxtaar mu nañu ngeen dem bay mhm. dañoo ñëw commencé ndànk-ndànk ñu joxaguñu fi. Mhm. sept hectares. d'accord ñu bayeeguñ ko euh, ci gerte gi. Mhm. ñun nag ñoo ngi nii ci toolu gerte bi. fi lañ toll nii. d'accord yéen a ngi ci gerte gi gis naa fii itam li nga xam ne moom mooy bisaab. waaw bisaab bi. Mhm. ay kii la rek yuñ ci dugalaale ci biir. mais fi mu doon daal tool bi moom moom mooy toolu gerte bi am na toolu mboq. Mhm. am na toolu ñebbe. d'accord waaw campagne campagne euh, commercialisation gerte gi door na dañu ngi fixé prix bi ci ñeent fukk yow loo ci xalaat. ah, ah ñun da xam nga rek ñun ñun moom ànd ak ñun rek ñun loolu la ñuy dox mhm. ñun soxlawuñ dara soxlawuñ ci kii soxlawuñ ci leneen ñun daal mhm. euh, góorgóorlu nekk ci àll bi daal ci ndigal mhm. ñun loolu ñu gën a ñoral ci ci ci ci ci campagne bi ci yëpp ñun luñ ci am rek baax na na doon ci ndigal daal gerte gi tey boo ko xaymaa li nga li nga kii wala xam mënagoo ko xam ñaata la waaw mënagoo xam comme sept hectares lañ bàyyeegun la ci gerte loolu a xamagun ñaata la mais xam naa ne daal danañ euh, moyens yëpp am na. mbàkk mhm. mbàkk bi dugg ci tool yi di liggéey. waaw waaw waaw waaw ci kaw ndigal nag. <laughs> ci kaw ndigal. d'accord ñun ñun rek la ñuy wuyee. waaw euh, ñun amuñu lu sëñ Sidi Mokhtar. d'accord lu ñu sant rek ñun ci loolu la ñuy def bu ne ñëwoon nañ dëkk fi abadan ci fii la ñuy dëkk abadan. Mhm. waaw moo tax ñun ñun daal àll bi rek moo ñu neex daal fi tool la. d'accord euh, sëñ bi dañoo gis tamit li fi nekk ci mbooloo tey takku na. Mhm. Euh, lan moo waral tey lim bu takku bi ñu fekk leen ci tool yi. waaw xam nga ñun ñoom chaque jour bu ñu wootee. ne nañ ñëw ci tool yi tool yi dañ koy jàppal bis bu ñu nekkee fii comme bi ñu fi ñëwee léegi ay juróomi at la ñu dëkk ci dëkk bi. Mhm. dañuy jàppal bis tool yi chaque euh, talaata. Mhm. ñëpp dañuy ñëw yëpp dañuy ñëw liggéey si. Mhm. ba nga xam am na ñoo xam ne sax dañuy jógee Dakar yenn saa ñëw di ma jàppale. ñii di jógee ci Louga fu nekk la nit ñi jógee ñëw di ma jàppale si tool yi di ma di ma liggéeyal. murit ndigal daal. waaw ndigal la ni ñu koy waxee. ñu gis leen ñu yore seen i seen i euh, bii moom mooy ban moom. <laughs> fourchette kii fourchette. voilà yore fourchette yore seen ileer. waaw sëñ bi ndax léeg-léeg di nga ne ci tool yi. waa man ci liggéey bi. waaw man tool yi laa gën a bëgg sax. ba ñëwee daal fii damay futteeku rek. Mhm. parce que fii ñu nekk taalibe yi benn lañ njigale ñu fi bàyyi bàyyi fi taalibe yi. Mhm. moo tax fu ñëwee daal dañuy simmeeku rek dem ci tool yi. Mhm. ba keroog liñ euh, luñ def daal daañ ko def ba keroog dañuy yendoog ñoom liggéey bu dee bay mi dañuy bay bu dee lii dañuy liggéey parce que ñu ak ñoom benn lañ sëñ Tuubaa ñu boole rek li mooy càll càll mooy dajale gerte gi def ay jal yu ndaw suñ paree nag continuer di naaf fu ñu toll ci càll lañ toll lañ toll buñ ko naafee dañ koy bàcc suñ ko bàccee nag jëri ko ci la ñu door a séparé <laughs> gerte gi kii bi. ba fi ñu yàggul waaye macha allah. d'accord ca kaw ci kayam rek. kon bu ñu nee jàmbaar la yow da koy nangu. bu baax sax. Mhm. lu tax ñu ne jàmbaar la. Ah. day liggéey moom. Mhm. waaw day liggéey baax sax moom. seetu ci sant bi Mbàkke ak yooyu. jaay liggéey baax a baax. baayam di sama sëriñ mu ñëw defal nu lu kenn defalut ñëpp ñëw dëkk seeg nun ànd ak nun lu mu am bokk koog nun xeer nu ci sëriñ tuubaa nangu naa liggéey ci ndaw mënoon a am sax yeneen yu mu nekk mu ni dee damay ñëw accompagner taalibe yi ndax taalibe yi bu ñu gisee ku mel ne Sëñ Ahmadu Mbàkke mu ñu fi ci àll bi di bay di call di naaf di nekk ci àll bi di buddi ay ñax di sonn ñoom it war nañoo xam ne lu dul liggéey dem ci àll bi liggéey rek moo ko gën mbàkke da ngay borom boot te sa njaboot tawat gi yi dema ab antal pare may la poto ak xarnu bi Faline la dëkk waaye dib ba mu fi léegi buy liggéeylu ñun bu nu ko yëgalee dañuy teel a ñëw pour jàppale ko ci liggéey bi parce que suñu dëkkaale boo xam ne nii maanaam daf noo yokk ci pour ñu mën a góor góorul mën a liggéey waaw waaw te it yàlla dafa dogal ne danoo bëgg a bay di bay te ni bay xëy na dañ ciy xaw a néew doole mm-hmm. waaw muy ci wàllu njumtukaay bi ak ci wàllu mbéy ak càmm lan boole ci wàllu càmm gi néew nañ ci doole ndax nin war a béyee li war a sàmmee mënuñu koo sàmm ndax néew doole nin war a béyee mënuñu koo béyee ndax néew doole bëggoon nañ itam ku dimbale ci projet yi ñu jàppale nu nu liggéey parce que réew mi dara nekkatu fi te mbay mi ñu doon dem ci Europe wala dem feneen mbay euh, liggéey bi demeetul noonu dégg nga nañ ñu ci àll bi jox nuy projet nuy def euh, embouche ak mbay mooy yor loolooy suqalum réew xamuñu lu mbay itam nag. mottali jàkka ji ñu naal wotool boolu seen alaal ndax yàlla na atel xeer na ñu nag am nañ suñu benn nit bu nekk fii bu tudd uh, Cheikh Diop opérateur économique buñ paree moom mooy jël lépp moom mooy jël lépp. yàlla dogal ba mu commencé ba léegi lépp lu mu ci ñoral. muy gerte bi ñebbe fii la ko indi ci man man la koy jaay. moom suñu taalibi la <laughs> comme taalibi la rek moom mooy xool lu ko neex rek mun ñu lii daal <laughs> ànd nañ cee suñu xamam lu mu wax tamit loolu duñ ci discuter ak moom. à chaque fois bu fi indee gerteem prix officiel bi ñu teg muy prix plafond muy prix officiel bi état bi teg à chaque fois dama ko jënd de plus. du ko du ma dépendre sax ci prix boobu dañ koy yokk pour encourager ko ci li muy def moom. xiif tax ma yenn tool yi booy sëriñ bi jaasul xarnu bi tax ma ñu daa joxe ngi laaj ñii jàpp seeni sax di xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj sëriñ bi jaasul xarnu bi d'accord bi tax na xol tiit bakaar bi tax na. fii mooy toolu ñebe bi. Mhm. fii moom 4 hectares la. 4 hectares yi moom chaque. at bu jot fii la ñu béyee ñebe ji ànd ceeg soxna yi fii may yowoo ci suba gi damay dem foofu toog faak ñoom ba ñoo ñu wàcc góor ñi ma ñëw jigéen ñi fii toog feek ñoom ngoon gi ba ñu wàcc mhm. euh, waaw waaw di def li ñuy def li ñuy def lay def man ak ñoom parce que ñun ñëpp benn lañ ak sëñ Tuubaa ñu jiital seen kanam waaye ñun ñëpp benn lañ bi a wàcc ci tool bi déedéet bassin xooluma ko sax mhm. maanaam xooluma sax ne lu rafet laa sol dama yaakaar ne comme ñii ñoo ma gën a rafet luñ sol sax ci man fi mu toll baax rek lan mën a seede ci moom waaw ndax sëtu sëñ Tuubaa la lu baax lu ne ci moom la lee ñu tamit lu baax lay def ñu topp ci ginnaawam suba ci ngoon. soxna yi jàmbaar lañ man li ma gën a neex ci àddina mooy soxna yu mel ci àddina mhm. su ma yeewoo su ma sañoon ma yeewoo ñu mel nii laay gis ñoo xam ne liggéey rek moo leen ñor man nii rek ñoo ma ñor. a far dellu gannaaw barab yi ginnaaw ay ku la sorox garab bu daanoo xob yàlla bambaay nga njaama waaw bi nag bu paree eh, li ci ëpp nag man dama koy dunde man ñeer bi rek laa bëgg ah. <laughs> waaw ana ana buso buso daa <laughs> buso buso yi xam naa tey danañu wax moom allahu akbar samaan samana moo mën a sabaan xéewali def di awala laan eh, liñ mën a jéggaani am ko moo ëpp lii fuuf mais lii dafa nekk dund goo xam ne neex na yàlla neex suñu neex eh, yonent bi neex sëñ tubaab mi nga xam ne moo ñu fi yebal mhm. looloo tax ñun dund gi moo ñu dàqal dund guñ mën a am yeneen dund yi du yi dara dund mbay mi ñuy dunde moo ñu gënal lépp samul mee xuram borom jur de law ci xarnu bi ñu def daawal wali baman ci buñ ne jàmbaar la moom da ko war a def sax ñi moom day cosaanam day dafa war a nekk deret ji daw ci moom ku ko xam xam ni jàmbaar la borom fit la dafa nekk exemple ndax nekk sëriñ ba def yàlla dogal taxul mu nekk mag ñu yem génération ma gis ay yeneen moroom yoo xamante ni tey mu war a nekk exemple ci ñoom ndax ñëw ci àll bi di fi bay loolu moo tax loolu moo ñu inspiré ba tax ñun lépp lu mu yëngu ci wàllu mbay moomu dañ ci jàpp ndax ñun mbay rek moo ñu ñor. exemple bu mag la exemple bu mag la waaye nag daf di gone gu dégg ndigal mhm. ndax seen maam moo leen ni dem leen ngeen liggéeyi nekk ci leen sëñ maam bàyyiloon sëñ Touba. waaye mhm. bi nga déggee coow yi ak yooyu moom gone la comme ni mu la ko waxee mu ngi woon mu doon am xaalis macha muy kenn ci ñun du ma ne ci man rek damay généraliser puisque moom baaxam ak xam ak yëg nitam ci ñëpp la ko ci ñëpp ci ñëpp la koy def quoi. liggéeykat la ba pare dafa nangoo sonn ci nit nangoo sonn ci nit moo tax mu am lii tey. li war a bëgg mooy ñaq tedd ndax loolu la doon ci sëriñ Touba ba ci Serigne Bara Mbacké ba ci sëñ Abdou Aziz Mbacke mi jur baayam ba ci sëñ Moustapha mi ko jur moom bu defee lu dul jàmbaar rek wàcc nañu raay bi war a jaar yoon bi war a jaar. ma wax ba ne tareet ngir yaa ma def antal pareet yaa ba bu xam-xam nu yéet ci sama xel ci xërnu bi te ma tàngam lu ci ñaan lii ma bon tey ku ñaan mur ci yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xërnu bi jooy terantal la jooy ay jàngalekatu alxuraan lan jógee Touba yor fa daara waaye bu ñu yeboon ni ñun ci biir waaram ci li ñuy bay ndax li tax mooy yàlla dafa def ak bëgg-bëgg ci moom boo xam ne ci bëgg lu baax ak taxawal ko ak képp kum gis nga di ci yëngu mu jàppale la ci loolu tax na ba bu ñu yeboon ni ñun suñu tool ci biir toolam la nekk léegi. sëñ Ama lépp loxoom jógewu ci saa su ne mi ngi dimbali daaree alxuraan yi saa su ne mi ngi leen di xalaatal saa su mi ngi leen di defal lépp ndax daaree alxuraan yi saa su ne waxuñu suñu daara ji nga xam ne bii moom lañ yor waaye daara yi nga xam ne bii sax dafa nekk ci yeneen dëkk yi wër foofu ak yeneen dëkk yi nga xam ne bii dañoo nekk tuubaa wala Njaareem wala xeet yooyu. saa su ne daf leen di jëndal mburu daf leen di jëndal lépp loo xamee ne bii maanaam luy avancé daara ji la ak loo xam ne xale yi bëgg na ko moo xam ay dàll la moo xam ay yére la moo xam yu mel noonu yooyu yëpp da ciy sonn. li ci njëkk mooy di ñu jàppale ci xalaatam mooy lépp loo xam ne jàpp na ne boo ko defee mën na laa yàqal wala mën na laa gàllankoor bu ci amee xalaat mu conseil la ci di ko ñaareel mooy li ko yàlla nga ci wërsëgam amul fu mu ci yemale. buy def lu baax. di dopp daara ji la di nemmeeku daara ji gudd gu ne jamono ju nekk kuy nemmeeku daara jamono ji nekk la di fi dikk lépp lu man tamit di ko dimbali moo xam ci wax la boo xam ci jëf la moo xam ci wàllu gu mën a doon. sëriñ bi jaagul xarnu bi sa dem bi sax na ñëpp jooy nawi bi sax dootuñu tooy. ña ngi ko sos 1939 sëñ saxiir moo ko sos 1939 bisub gàmmu la. sëñ Mat Saxir moom fii la dëkkoon kokki wala sëñ ñëwoon rek moom mu ngi dëkkoon Louga waaye maam Cheikh Mbaye moo na ko waxoon demal ko santoon ne ko demal kokki ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla mhm. waaw loolu moo tax mu ñëw fi 1939 di jàngale alxuraan di fi nekk à peu près mën nañoo wax 3500 entre 3400 3500 taalibi yoo xam jóge nañ ci Sénégal gépp ba jóge ci région bi jóge Gambie jóge Guinée jóge Mauritanie jóge Mali waaw jóge Burkina. su ma leen gisee sama xol day sedd parce que mënoon naa euh, dem dellu siwaat du ma fi jaaraat wala mu ne na neen hmm. waaye ñoom ñoo ma fi ñemeloo su ma nekkee ci dëkk bi sax ba dem di fi sàmm ka euh, bay ñoom ñeme ñoom fi ñemeloo bu ma sëñ bi yabalee ñoom ñoo ma dalal di ma ñaanal guddi di ma ñaanal bëccëg fàttiwuñ ma benn yoon seen ñaan ak seen jàppale bi may jàppale moo fi bàyyi ba léegi si sinon kon du ma fi sax taxaw. day dañ ci sant yàlla rek nag. dëgg la mën naa am sax nag bari na ñu nu gën a rafet la waaye en cas ñu ngi sant yàlla daal ci liggéey bi nga xam moom lay am ndax jamono ju nekk nii dañuy seet luy gën a rafetal ak luy gën a améliorer liggéey bi ñu di ko gën a def jamono ju nekk ci ñu nekk nag ak di topp tamit méthode di xool tamit méthode yu bees yi parce que pédagogie nekk mbir la moo xam ne mi nekkul mbir muy taxaw waaye mbir la moo xam day bees jamono ju nekk day bees di bees bis ma mokkalee alxuraan bi ma taree kaamil bi boobu mooy suur bi ma gën a neex sama àddina kokki waaw ñoo tëree kaamil alxuraan commencement bi metti ba ci kii ba suur bi ma ko tëree ba ne ma coono jeex na suur boobu mooy bis bi ma gën a neex ci dina fàttali na ma jàng ma rax di ko waajal lii moom rëy na ci man lool fàttali na ma lu rëy rëy sax dama xool tey sax dafa jeex parce que fii moo fi daan toog ak léegi moom <laughs> xaw na soppeeku lool waaye nag kontaan nañ lool. cal nañu naaf nañu dugg nañ ci toolu gerte yi dugg ci toolu ñebbe yi gis ngeen sëriñ ax ma Mbàkke mu nekk ci waar wi bay lii mooy seen émission jaar jaari jàmbaar ñu nekk ci weeru safar ndax ñu taamu sëriñ ax ma Mbàkke mii ma nga dëkk bu Tuubaa waaye dafa ñëw fii ci njàmbur di bay di liggéey di jox sëriñ bi jeune la boo xam ne ne dafa gëm boppam dégg ngeen CD yi wala ñu gisee table bi xam ne ñu ngi kokki kokki gii la jànge alxuraanul karim fii lañu ko tàggatee moo tax mu dellu siwaat fii xoolaat nemmeekuwaat njaboot gi sëñ ax ma bàyyi la nga tàggu téléspectateur yi. waaw ah, sant ñëpp rek di gërëm ñëpp gërëm waa dëkk bi gërëm ñoom Cheikh Diop ni opérateur yi gërëm ñëpp gërëm sëñ Matar Lo mi nga xam ne ñuy taxaw. gërëm sëñ Sidi Mokhtar mu yàgg fi lool te wér. Mm-hmm. di wax suñu moroom yeeg ñi nga xam ne ñoo bokk yoon wi nañ ñëpp góorgóorlu ji dem ci àll bi liggéey yi parce que yeneen yi ñuy def yëpp ay caaxaan la li am solo daal ba am solo mhm. mooy nañ dem ci taal dem bayi dem sàmmi dem liggéey comme loolu la sëñ bi bëgg nañ ko def mu ngoog sëriñ Axma Mbàkke ñu koy sant di ko gërëm sant leen yéen tamit gërëm leen ci seen teewlu gërëm leen ci seen safo jox leen di daje beneen weer ak beneen jàmbaar ba tey ci Sénégal niñ ko waxee weeru safar lañ nekk di weeru Tuuba ci dara